bijaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani tuubaabaat mislasmi bijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fanajjini waxfir lahu aw saara wa kullu man aabani aw maala بالله فسقدا أو مارا وكل من ستمني أو لاما فابلغ توبة واستسلاما وكل من أساس بها فليقل قلبه يا ربي يا فلتكفني عسى جميع العالمين والتقي عسى يا رب العالمين وجل بنائي بنا آفيا يجرني إلى خيول سافيا واجعل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بنائي بناء الاعتداء والتكفني كيد كل سيتداء والتكفني دراسة سيتاني وغلبي الباخن في الأوتان ولتكف عني كل شخص لم يريد وجاك فاسلم سريعا يزيد والتزفا جملة ما يفسدان يدي وعن داري سري عن نيسوان ولتدق للمسلم في يدي وفي داري وثابتا حب الهادي وفي و... mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar ci ndigalul Serigne taxaw Mbacké xalifa général de Mouride mi nga xam ne nii moom lépp loo fi xam ne nii moo fi yëngu mooma te muy jëwriñu Touba ca kanam nu nekk fii nag ci Daaru Xuddoos di tàmbali liggéey bi nga xam ne nii moo di liggéeyu defar tuyau yi nga xam ne nii moo jëm ci assainissement bi ngir ndox dootul taa ci dëkk bi xam ngeen ne Touba ca kanam moom ba mu tàmbalee ba léegi lii mooy sababam defe naa ne lam fi njëkk a def ci inondation la woon te moo di ci li nga xam ne nii mooy fële ca ndaamaatu ca jumaay sëñ Saliou jë loolu la ñu tàmbalee woon boobaak léegi jóguñu ci di liggéey loolu ba léegi nag fi ñu jaar fépp jërut ma ciy ñëwaat defe naa ne mbokk taalibe yi ci bari xam nañu ko waaye ren nag moom priorité numéro un bi di assainissement wu Touba maanaam fexe ba mbedd yi leer nañ balaa màggal incha allah. waa liggéey bi fii tàmbali moom. waaye nag fekk na ñaar dafa bokk ci ñaar fukki sites yi nga xam ne nii moom la Touba ca kanam fas yéenee defar ba nit ñi mën cee jaar boo seetee ba ci jëkk moo di fële ca ñu doon defee lancement bi ca gaawu bële weesu di tolloog le huit nga xam ne sëñ Mountakha moo joxe ndigal ne nañ tàmbalee foofu mooy ci yoonu Mbàkke yu ci sel bi waaye yoonu Daaru Rahmaan boo demee ca 30 bële ca kër sëñ ñaan Joob ak mbedd yu ci bëree bëri tàmbali nañ ko ba liggéey ba sori na lool ba latérite sax ñoo ngi ko fay teg. Baye dañ leen a woo ci liggéey bi xam nga ku ne murit ku ne ba ku ne murit ne Baye Fall Baye Fall yeeg Baye Mbàkke yi ñëpp fi nekk waaye jëwriñu Baye Fall yi nag muy sëñ Moustapha Fall Mbar ak sëñ sëñ sëñ sëñ Falloum sëñ Modou Aminta dañoo jàpp tey ne ñoom dañuy ñëw ngir tàmbali nu di leen siyaare ci loolu ñëw tàmbali liggéey bi fii ñu xool nag lii nag mooy liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu ayca murit bi dëgg moo tax ñu ñëw fi tàmbalee fi lii ñu tàmbali nag xam naa ne lii de moom ba ba ba fële du du yàgg mu yàgg waaye nag liggéey bi day continuer dañoo fas yéene balaa màggal gi dañoo fas yéene balaa màggal gi di ñëw yoon yu mag yëpp wu mel ni wii nii ak wu mën doon ak fu mën di nekk mu am jaarukaay ba nit ñi mën a dem ci jumaa ji siyaare ak nuñ ko bëggee بأهل رافق الخيار والصغار وأبلنا أقصى الذي أتانا وترك ما في لما نعانا حتى يكون كلنا في النركات مقتديا بسنة وسكنات ولا جنا بجاي من دعوى ولتكفي عنا كسبا ولهوا ولتكفنا ما لا يغني بك ودابا أخنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة عوسا من سنوب ياس مولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نسيب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل حين كل عين ولا تواقفنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللاعبين فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواقفنا بكسرة الفضول في زائر وباطن